dañoo bëgg a laaj ci ban Sénégal la ñu nekk dañoo jàpp ni le deux bii weesu parti politique bi ñuy wax APR dafa woote am ndaje bu mag ñuy wax anniversaire pour seen parti dajale ay nit ñu bari ci ci wàll wa am ay sénégalais comme ñoom am ay nit comme ñoom ñoo xamante ni ñoo ànd bokk dëkk bi demander manifestation ajuma bi ci loo xamante ni déposé nañ ko à temps mën naa ne deux semaines avant muy ñoo lànk ak UNAPAS kuréel googu yor wàllu pêcheurs yi pour def suñu doxum ñettu ci lan lii jariñ askan wi lii nga xamante ni mooy accord de pêche yi nga xamante ni moom la état bi def te du jëriñ suñum réew ci ñun ba ci suñuy sët ñu ne dañuy def suñu yëngu-yëngal suñu doxum ñaxtu wax li ñu naqari en même temps déposer mémorandum bi nga xamante ni ay proposition la pour maanaam pêche boobu gën a mucc ayib waaye ci kaw loolu préfet bu Dakar tere ñu ko motif bi mu ñu ko teree coronavirus ñuy fàttale préfet bu Dakar ndax coronavirus période boobu ca la dëba muy bërkaati démb ja moom wax dëgg yàlla bàyyiwul xel ñi suñu mbokk yi nga xamante ni waa APR lañ doon def anniversaire u APR te dajale ay nit wala boog dañoo nekk ci Sénégal boo xamante ni dafa am ñoo xamante ni dañoo nekk en priorité ci ñeneen i sénégalais ci kaw loolu nag ñoo lànk introduire beneen marche parce que nag marche yoon moom moo ñu ko may biñ ñu ko biñ ñu ko terele ñu ne dinañ dem déposer beneen demande boo xamante ni bii paa non seulement duñ dem euh, place de l'obélisque mais ñoo lànk day fas dem buntu union européenne pour naqarlu accords yi nga xamante ni moom mooy caxat caxatee suñu ressource halieutique lii. ci kaw loolu la suñu ay membre jóge suñu siège dem pour déposer lettre. moo ndax dañuy laaj ci kañ la lañu ñu commencé nit sénégalais buy dem di def devoir ñu intercepté ko jàpp ko gisoon nañ ko fi ay ay yooni yoon waaye bii nag moom dafa gën a dafa gën a confirmer mayu ñu leen sax ñu dugg déposé dañu leen a fekk ci yoon bi daal leen jàpp yóbbu ci ban Sénégal lañ nekk ci kaw loolu ñu jàpp leen yóbbu leen plateau ñooñu ñan lañ ci suñuy ay membre mooy fàllu Diagne muy Pape Abdoulaye Touré co-coordonnateur muy Malick Biaye muy Thierno euh, Mouhamadou Sall ñoom ñeenti ñeent ñooñu vendredi dañ leen arrêté ba tey bisub tey bii ñu ngi leen teg loxo commissariat bu plateau ñu yëgal nag sénégalais yi ñu ngi leen di wax ni ñun introduire naat nañ beneen lettre comme lettre moo waral coow li dugalaat nañ beneen lettre ngir ajjuma bii di ñëw lu li ñu yoon may dinañu ko dem defi buntu incha allahu rabbi union union européenne ñuy bàyyiloo xel nag sénégalais yi ne lii fi am ni lii fi xew nii bu ñu ko seetaanee dinañ fekk nit këram ñu jàpp ko duma ko tëj ko ci lu dul loon loolu moo tax ñuy bàyyi loo xel Sénégalais yépp et di woo Sénégalais yi ci lii ñuy waaj def incha allah ajjuma ak jàmm ba pare teg nañ ci nag parce que boolewuñ ci rek wax attaqué nañ ki nga xamante ni moom mooy préfet bu Dakar ci justice. parce que gisuñu lan moo tax mu war a mën a autoriser ñenn ba pare bàyyi ñeneen moo tax en moment ñun introduire nañ benn mémo en même temps introduire nañ ci wàllum yoon loolu ñi yor suñu wàllum yoon ñu ngi ciy dox. pour préfet bu Dakar ñàkk yoon bi mu yàkk teg yoon li nga xamante ni ñun bëggoon nañ ko def euh, en grosso modo loolu moo nekkoon phase phase wolof bi ngir wax leen ni ñoo lànk collectif ñoo lànk dañoo demoon di déposé ji syndic gannaaw bañ leen arrêté bañ leen bañalee seen marche bi ñu bëggoon def ak pêcheurs yi ñu dem di déposé ji beneen lettre pour dem Union européenne pour naqarlu accord de pêche yi nga xamante ni tey Macky Sall jaay na suñu géej gi ba pare dafa jaay ba wis quatre membres yoo xamante ni ñoo lànk lañ bopp bokk mooy tur yi ma cité léegi ba pare téye leen loolu nag lañ ne na dakk te nag ñu demandons la libération immédiate nañu leen bàyyi ci ni mu gën a gaawee parce que gis nañ fi nit ñu fi def scandale yu gën a rëy fopp gis nañ fi ñu fi def phobie gis nañ fi ñu fi def leneen ak leneen te kenn laalu leen kon ñii doon def def seen devoir di waa ñoo lànk nañ leen bàyyi libération sans condition te nu mu gën a gaawee bëgg nañ nu mu gën a gaawee état Sénégal bàyyi leen ñi ngi leen di teg nag ay sarge yoo xamante ni du dëgg te ñun gis nañ ni amul charge yi mooy lan nee nañ dañ doon bëgg a arrêté cortège bu Macky Sall est-ce que loolu yenn na maanaa ci koo xamante ni mi ngi ak lettre de déclaration bi mu doon defi pour déposer ji lettre pour def sitting am mi ngi ak bi nga arrêté ko daan ne da doon arrêté cortège u Macky Sall est-ce que tey Sénégal xamee nañ ñoo lànk ci loo xamante ni def lu yoon la. est-ce que tey Sénégal xamee nañu ñun ci procédé di procédé noo xamante ne irresponsable la même loolu bu ñu ko doon def sax yaakaar naa ne ñun wax dëgg yàlla du ñu yegg foofu. mais dañoo demoon di defi devoir ñu bëgguñoo ñoo tuumaal di ñu wax ne ñu dañoo demoon arrêté cortège u Macky ñun loolu jaraluñu ko li ñu jaral mooy li ñu yoon may ñu dem defi suñu sitting incha allahu rabbi ajuma bii di ñëw ñu ngi woo Sénégalais yëpp buntu Union européenne en l'occurrence tous les pêcheurs du Sénégal mais pêcheurs yi rek moomuñu géej gi Sénégalais yëpp ñoom ñoom moom géej gi te fii ñuy xool Union européenne di def lii muy def nii bu yàggee incha allahu rabbi nit dina gën a bëgg génn saqat te du mën a saqat loolu daal nañ